asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi noo ngi leen nuyu di leen siyaare nu dikk ci sunu ñaareelu jataay ci almuridiya ginnaaw bi nu ko ubbee nag sunu jotaayu tey dañ koy jëme ci sosuk yoonu murit ak barab bi mu sosoo ci sosu googu lañuy waxtaanee barab bi mu sosoo ak jamono ji mu sosu ak yoonu murit man ngir la maanaam sëriñ bi lim woote mu yoonu murit lan moo ko wuutaleek la nga xam ne ca la nekkoon lu jiitu muy woote yoonu murit yoonu murit mi ngi sosoo ci barab bu ñuy wax Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor dëkk la boo xam ne ci biir Kajoor la nekk sëñ Mor Anta Sali moo ko sanc Lat Joor Jóob moo ko yilifoon te amoon ak sëñ moor entre Sali ay relation yu dëgër dëgër kon ci dëkk boobu la soso jamono ji nga xam ne moom la sosu mooy ginnaaw bi sëriñ moor Anta Sali génne àdduna muy mille trois cent un e, mille trois e ci atum jullit dëppook mille huit cent quatre ci atum tubaab doonte eh, dat yi bëri na ay wuute sëñ Mor Anta bi nga xam ne mu ngi fi Serigne Touba daan nekkoon ci peggam di ko dimbali ci njàngale mi xarañ lool ci njàngale mi ba ndong yu baree bari dañoo taamoon di jànge ci moom sëñ Mor it doon ko am mbégte ci loolu xarañ googu sëriñ bi xareñ ba ndongo yi tànn ko waaye it sëriñ Touba doon koo xam ne mësula jéem a taxawal dara ba mu yëngal dara ci teewaayu waajuram bi fi waajuram jógee nag ba amub diir diggante bi fi juróom jóge ba ni mu woote yoonu murit dafa doon wëyal euh, loola nga xam ne moom la ko juróom doon defloo muy njàngale mi ca loola rek la sax féetewoo daara ji ab diir rek la daal di am ndigalul woote euh, yoonu murit li nga xam ni nag moom la woote moom sëriñ bi ndigal la ci am lu bàyyi ko ci yonente bi salallaahu alayhi wa sallam yonente bi salallaahu alayhi wa moo ko jox ndigal ne ko yaral sa taalibe yi ci yitte ju kawe bul yam ñoom ci jàngale rek sëñ Modou Lamine Diop Dagana dafa indi wax ju yaatu joo xam da ciy leeral Sëriñ Tuubaa li mu woo taalibe yi ana lum doon mu wax ne lii day mel ne ab laaj lan la sëriñ bi woo taalibe yi ak ki lan la leen doon yéege di leen ca yar loolu mooy laaj bi daana tontu li nag mooy la sëriñ bi doon woo taalibe yi mooy ixlaas al ixlaas mooy sellal daan ne al ixlaas moomu nag di sellal mooy ruuxu jëf jëf ju mën a doon faw ixlaas dugg ca jëf ja door waaye jëf joo xam ne amul ixlaas maanaam moog lu deeyam lu dee ni muy ñàkkee njariñ ni la jëf ju amul ixlaas di ñàkkee njariñ nga xam ne kon day mel ne jëf la tax muy dund ba amal borom njariñ mooy ixlaas da cay dal di dugg mu ne ixlaas moomu nag sellal moomu mooy njureef maanaam mooy résultat nit yàlla yi moy seen résultat bi nga xam ci lañuy sukkandiku ngir mëna yegg ci yalla ci lolu mu ne yegg ci yalla nak baat la bo xam lañ koy wax waye leen ci djublu moy jaam bi dem ba sel lol du def dara taxut ay yengom ak dalam ay pas-pasam ay waxam ay jëfëm sahir ak batin leppam rek ci yalla kep lay jëm du jëm ci lanen yëg gii nag mu wax yegg gi daan ne yegg gii nag mëneesu koo am ci njàngum kese kon daa di ngay xam li tax sëriñ bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wooteloo ko ci geneen anam mu ne ndax jàngalekat bi moom day fexe ba ki mi jàngal dégg lim koy jàngal bu ko ko jàngalee ba noppi nag mën naa jub mën naa bañ a jub ndax ak jubam du liggéeyub ka ko doon jàngal loolu nag wuuteeg li sëriñ bi woote muy anamuk tarbiya mu ne bu dee ak tarbiya nag moom sëriñub tarbiya daa bokk ci liggéeyam kii muy jàngal mu jànkonteeg moom fexe ba lim koy jàngal loola di nekk ci jëmmam maanaam ci misaal bu fekkee ne dangay jàngal taalibe bi ay melo yu sunu borom ŋañ ñi wax ne ab jullit du ko meloo dooyam ci xamal ko ko waaye danga nga boole nag di ko tarbiya ba melowoowa du nekk ci moom du ko jege mukk bu doon daa ne ci moom it boo ko ko xamalee ba noppi da nga cay boole fexe ba melowoowa denc ci moom bu sunu borom tàggee aw melo wax ne ab jullit nii la war a mel sëriñub tarbiya bi du yam ci jàngal ko taalibe bi waaye da cay boole di ko melowoo fexe mu melowoo melowu sell woowa sunu borom di tagg ne ab jullit noonu lay melawoo kon loolu mooy liggéeyub euh, sëriñub tarbiya anam gi ko sëriñub tarbiya di defee nag maanaam fexe ba taalibe bi li muy jàng euh, mu di ko jëfe bañ a yem ci jàng kese waaye boole ca di tarbiya mooy da koy sikkarloo da koy jàngal boole ko di ko sikkarloo di ko tarbiya ci tudd yàlla di ko tarbiya ci liggéeyloo ko di ko tarbiya ci ay addiya yu mu koy jox waaye loola nag sëñ Modou Lamine nee na la koy jiitu mooy ak bëgg gu dëggu lay fexe ji ci xolub taalibe ba bëgg gi bëgg gi am ndax gis nañ ne bëgg mooy doon cëslaayal lépp bu bëgg gi xasee am rek jubbanti gi ci doon ko di ko defaloo ay sikar di ko tuddloo yàlla di ko liggéeyloo di ko joxeloo addiya boobaa day daal di yomb léegi nag ginnaaw ba mu euh, lalee ak bëgg gu dëgër teg leen ci yoon woowu ca la leen teg di leen ca teg ba taalibe yi dañuy mujj gis seen sikki bopp ku defaru dëgg day dem ba yàgg mu gis ne moom ndakate am na sikk sàngam ak sikk sàngam waaye nit feeg xamul ay sikkam rek ak defaroom des na buñ demee nag ba xam seen sikki bopp mu di leen jëfloo jëf yuy tax sikk yooya daal di deñ kon taalibe bu nekk war naa xam ne ci ñaari tànk yi la war a taxaw di jëf jëf joo xam ne ak di jéem a xam loo xam ne bu ko xamee looloo da koy xamal sikki boppam Sëriñ Tuubaa wax ne xam-xam ba ci gën mooy ba lay xamal say sikk nga taxaw temm ci jéem koo saafara bu xamee ay sikkam nag daal di taxaw temm ci jéem a dindi sikk yooya ba a wax ne rek man am naa sikk sàngam waaye day taxaw temm ci jéem a dindi sikk yooya taalibe bi nag bu ko sëriñ bi awalee foofu nag ba mu seet ba mu seet wecc ci ay sikk daal di laab nag am xool bu seet wecc dafay daal di mën a am wusuul maanaam dafay daal di mën a yegg ci yàlla ci ndimbalul sunu borom kon dafa mel ne moom tontu loolu la indi biñ bi bi mu indeeb laaj wax ne sëriñ bi li mu woo taalibe lu mu doon lii ma mujj wax lépp ci tontu loolu la ko indee ngir euh, leeral mu ne bi nga xamee ne nag euh, sëriñ bi tàmbali na leen a tarbiya te ñoom it ñu nangoo ànd ak sëriñ bi ci loxin woowu sëriñ bi nag mi ngi leen ni tàggat nag ci yoon yoonu yàlla tàggat goo xam da ko teg ci di leen xiifloo ndax xiif moom mooy tax bu ñu demee ba dugg ci biir biir sax yooyu yëpp danañ ko beral ay pàcceem gën koo leeral xiif mooy tax bakkan mën a ba borom moom ko bakkan du ko moom di ko jëmale ci ab safaan noonu mu leen di xiifloo ni la leen di liggéeyloo ay liggéey yu bari ñuy taxaneeka rootaka Euh, lu ne ñu def ko ci xeetu liggéey mu bokk ci euh, tarbiya gi waaye noonu la leen di tegee ay tudd yàlla yu baree bari ay laa ilaha illallah sikkar yu baree bari noonu la leen koy gàllee ñu di ko warloo di ko def ak jàng xasaayit lu jiitu jàng xasaayit nag sikkar gi ñuy def di ko yëkkati di àndandoo mbooloo àndandoo di ko def daanañu ko def ba ni ñu tàmbalee di jàng xasaayit waaye it mu boole ca di leen saxloo ci ak laab lii lépp sëñ Mour Lamine Diop Dagana moo ko andi da cay boole fexe ba taalibe yi saa su ne ñu sax dàkk ci ak làpp maanaam fu seen njàpp tojee rek dañuy daal di eh, jàppuwaat duñ tàqalikooku laab mukk mu bokk ko ci nam leen tarbiya di leen beraloo nit ñi rawatina jigéen ñi loolu nag mat naa jàngat bu baax ci fii jamono toll mu mel ne taalibe yi seenu jaxasoo ku jigéen ñi rawatina ci barab yi ni jaamoo yàlla dafay sàkkoot yàlla sax dafa bari lool ta loolu ni sëriñ bi doon tarbiya mag ñi wute naag loolu ndax da leen daan beruloo rawatina jigéen ñi moom da leen daan beru bu baax a baax ci yoon wii nag la sëriñ Tuubaa teg ba ñu mujj kawe lool ku dul ñoom rek ñu gën laa kawe daal di nag tabbi ci aaya jooju sunu borom mbax ne inna laa xasara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yàlla jënd na ci way gëm ñi seen alal ak seeni bakkan ngir faye leen ko àjjana bu ëllëgee ñoom nag bi ñu ànd ak sëriñ Tuubaa ñoom mag ñi nangoo dëppook sëriñ bi ci yoon wi mu leen teg dañoo daal di jihaat dund lu metti dinañ ci dikk ci kanam ci seeni alal ak ci seeni bakkan ba dugg ci aaya boobu sunu borom di taggee way gëm ñi muy saxaaba yi nga xam ne ñoo jaayante woon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te jaayante googu ñu def képp ku matal kóllëre gu mel noonu sa digg ak sa sëriñ da ngay daal di dugg ci eh, jaayante gi mooy jox yàlla sa jëmm jox ko it say alal kon mbokk yi foofu la ñuy yëkkatee jotaay bi bu dellusee daldi sofe fii nga xam ne fii la ñu yam fii la ñu incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi أهو أعلى اليقين